wa ala millati rasulu man xetti xadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi dina barakaatu ginnaaw ñu ziare ay fegi Sëriñ Muntaxa te di ko jotal suñuy cant ak suñuy ngërëm Seydina Abbas suñu bàyyi Abbas ibn Cheikh Ibrahim wal Mustafayni te di sant njabootu ko tedd ki yëpp di sant itam mën naa ni waa réew mi yëpp ñi ciy jullit ak ñi ci dul jullit ndax yéene yi te yi te innamal ahmalu binniyaati di wax ni rek yi xewoon ci njaboot gi daanaka boobu débat mën naa tëju ko xam état xam ni doxale xam ñaari doomu aadama yi ki nga xam ni bonne intention mooy nekk ci moom ak ki nga xam ni mauvaise intention mooy nekk ci moom ki nga xamante ni bii mauvaise intention la yore da koy muñi ki yore bonne intention euh, waxoon naa ca gannaaw ni sama jant spirituellement dama koy yeew ci xalif général des mourides dugalaale ci ñëpp diin yem te geneen cant gi itam dañu koy yeew ci raisu réew mi muy président Macky duniya wi yan ndax ni ma ko waxee léegi rek ñëpp la ñuy sant ñi nga xamante ni bii seen yéene dafa sell ak ñi nga benn benn yi nga xam ni seen yéene xañ na contraire bi la waaye loolu àlla kulli moo am fépp loolu la ñu yàlla indee fii waaye li ëpp solo mooy majorité ñi nga xamante ni bii ñoonu yéene jàmm dañoo ëpp loolu moo tax te inal xasanaati yusibna sayyi'aati waw bu tilim amul kenn du fóot bu tax amul kenn fomp moo tax képp ku bokk ci dawlo bi ak noo ci mën a bokke ak intention boo man de am yaa ngi ci biir cant gi képp ku bokk ci état bi yaa ci biir cant gi am na lu ñu leen bëggoon a baaxe rek di ko baaxe suñu bopp di leen ko baaxe muy waa dawlo bi Lamine Sarr dafay faral di wax ni waa nguur bonuñu da ci am ñoo xam ne xamuñu te wax na dëgg ndax ku bon moom doo dem di ziyaare ji ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul déedéet mbaa ku bon nekkoon ci itam boo ko ziyaaree maanaam maanaam boo tili tilimoon nga kon dañ lay bala nga faa jóge da ngay set waaw ku tedd ki loolu lay jëriñ waaw maanaam boo tilimee boo ñëwee booy boo dalay fóot ba nga set waaye itam loolu doyul moo tax ñu leen di baaxee amul benn secteur boo xamante ne bii ci ñi ŋànk réew mi amul ay benn benn yoo xam ne ñu ngi settantal waxi ku tedd ki loolu nañu koy baaxee ñi ci des rek même bu dee sa patron itam ku yaakaar Serigne Touba da ngay amu fit bu dee sa patron te mu leer na leen ni lii yaa ko ko gën a maîtriser wala yaa ci gën a farlu man nga ko caa baaxee waaw ndax ku bon amu fi xañ na sàgganee am waaye ku bon amu fi bu ko defee mbiri nag euh, li ñuy tuddee kara sécurité maanaam Euh, ni nga xamante ne bii moo ko sos loolu dinaa ko wax balaa balaa at jeex dinaa leeral yëpp waaye lii daa mënut te ñàkk parce que débat bi dama bëggoon ñu tëj ko waaw am na ñu ñu accusé accusation yi li nga xam ne yoon a ngi ko ci def bu ko defee ba noppi ndax defe naa ni ñëpp maase wu ñu jubadi bu ñu gisee benn benn yu jubadi itam gis <laughs> boo gisee benn bu jubadi gis fukk yu jub waaw kooku du ci sama wér rek waaw képp koo xamante ne bi yaa ngay ko njaboot ñu mat ay junniy junniy nit waaw foofa gis kenn ku jubadi di nga gis fukk yu jub ci wet ga te inal xasanaati yusim na yi kon ñi nga xamante ne bii jub nañ ñoom nañ leen libéré ñu dellu seeni kër te itam defe naa ni bu fekkonte ni njiitu réew mi nag bu lii occasionné woon na ci amal benn centre d'éducation boo xamante ne bii spirituellement <laughs> defe naa ni kon tamitam mu doon lu légal loo xam ni du ñu def ay eh, wut barab bu la neex rek def ko base boo yore ay xale wala yu demee noonu bu ko defee yii yëpp di ca am yii yëpp mën naa ñàkk daal <laughs> bu dee ñun suñu jëmmi bopp nag wax dëgg yàlla ñun waxi ku tedd ki moo nuy sàmm fu ik fi nii daf noo féete fu nekk waaw tey surul asir féete nu fu nekk wala a xàqan féete nu fu nekk waaw te yooyu sax ëpp na waaye benn bëyit rek benn xarafu ku tedd ki rek nun wax dëgg yàlla moo nu féete fépp daal noonu moo waxee ni jël na boppam ak léppam dugal ci jibay yonente ma alayhi salaatu wasalaam noonu laa jëlee sama bopp ak sama lépp ak sama ñëpp dugal ci miim ak ahmadoom waaw ngi balu ak ñëpp daal tey sant ñëpp nag waaw <laughs> eh, tey sant ñëpp ñe banum ban ñi nga xam ne dañoo amee niyatul xayri ak ñi ame niyatul leneen it parce que niyatul charri mooy mën bu ko iblis ko ko a fenaan d'accord waaye bu fekkee fekkente ni doomu aadama bi yàlla nattoon na ko itam kee nga xam ne niyetul xayri la yor kooku itam malaaka di ko coiffé inal xasanaati yuzhibna sayaati bu ñaawee fi rafet fii noonu la àdduna baaxoo ni guddeeg bëccëg rek ak weer ak jant ak tàng ak sedd ak suba ngoon loolu daal moom laa ne woon mënuma ko ñàkk bañ a jàllale di leen digg nag waxtaan wu yaatu incha allah fii ak ci fin d'année bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.